jafandul lu tax su ma yeboo di e internet sans limite sn point com bienvenue ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di jaar maa ngi leen di jaar bu baax a baax di leen nuyu weekam fépp foo leen mën ci nekk tey nag maa ngi fi dalal wax naa leen ko su nekk mën naa keroog jëloon naa benn lutteur mais tey dama jëlaat keneen muy euh, mbër mu mag ci euh, arène nationale mu bu mag ci Sénégal ñëpp xam ko ñëpp ràññee ko ci xarañteem tey nag moom laa dalal ñu gën koo xam ci Khadim Ndiaye ñen dañ ko waaye Khadim Ndiaye boucher euh, ci bu xarañam ci mën dóoram tey nag moom la ñu dalal war a moom ci bokk de choses gëj nañ koo gis nag xam naa ne dañ ci xam dara Khadim maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur aussi di leen dalal fii ci suma kër. pour ñu waxtaan ci wàllu àdduna daal ak ci wàllu làmb. macha allah alors sànq dama ne xaadim lutteur xaadim yaa ngi bëri ba léegi. waaw presque bàyyi naa nag. lan ma waral bàyyi bi. waaw dama matal 45 ans di waaj a def jubilé. di waaj a def jubilé ba pour arrêter làmb une bonne fois pour. waaw mais arrêté ma ndax su rakk a ngi fi. Mhm. su ma arrêté tamit day pour jàppale leen. et sa écurie bi anamu. waaw écurie Thiaroye sur Mer nekk. dimanche sax lañ war a réunion. pour gën a doolewaatal écurie bi quoi. ndax yëpp lañ bëgg boole. mu nekk benn ñoom Reug Reug ñoom Ameth Deme ak Thiaroye écurie Thiaroye yëpp daal lañ bëgg a boole. mu nekk benn quoi ñu def Thiaroye 100 pour cent. mais avant tamit ngay bàyyi gëj nañ laa gis ci biir comme làmb ji lan moo waral loolu. waaw xam nga <clears throat> làmb ji at a ngi nii ñëwuma ci làmb. ndax dama yor société di liggéey ak. grand monsieur bu ñuy wax euh, Mbaye Sarr bu senekat Tour mu defal ma ay avantages yu bëri nag ci suma àdduna ci suma fin de jox ma xaalis ubbil ma société bu pare embauché ma moom ci boppam signé ak man contrat may liggéey moom kon liggéey boobu mënuma ko woon a bàyyi di ñëw ci làmb te plus encore li ma gis ci làmb neexuma ndax làmb ji la léegi bëri na ay farfarloo bëri na ay diil yoo xamante ni mi ngi ci biir làmb te comme man wax ko dëgg la aussi du ma gis du ma seetaan ñuy def yenn yoo xamante ni wóor naa ko mën naa ko dénoncer te waxuma ko moo taxoon ma reculer wu tuuti gëj ci làmb quoi. mais est-ce que nekkul itam euh, dafa am ñoo xam ne tëggaluñ la combat wala dañ la gisul adversaire wala sax dañ laa ñëwul laaj la wala ñëw ne la Khadim euh, kii lañ la gisal nga war a bëre est-ce que promoteurs yi ñu ngi doon ñëw ci yow exactement. waaw ñu ngi doon ñëw ci man ba tout récemment nii rek ñu am na promoteurs na ay promoteurs. xanaa promoteur yu ndaw yi mais promoteur yi ma fa gis yëpp ku ci nekk da am sa mbëru bopp. mais promoteur yu mag yi ñu ngi fi ñoom Gaston ñu ngi fi ñoom euh, euh, euh, ñeneen ñaa fi donc bëri na ba ci Aziz Ndiaye ba ci keneen ak keneen donc boo ne manqué ne promoteur dina jaaxal nit ñi de. waaw boo gisee mhm. loolu moo tax may wax. Ah, da nga gis promoteur bu na fi gis ngeen ko sax promoteur yëpp am seen i mbër. comme kan loolu daf fi yàgg ñëpp. ñëpp ku ci nekk am am nga sa mbër bu ñu waxalee yàlla rek mhm. promoteur bu ci ne Sénégal gi yëpp mën nañu gëm ni promoteur bu ne am nga sa mbër mhm. te ku nekk sa mbër buy bëre mhm. daf lay jaral lu ne te loolu avancé wu làmb mhm. day gën a féewale nit ñi promoteur mooy ki nga xam dafa war a tëgg ba pare net xam nga Gaston ñu mel ni ñoom Gaston ñooñu dañ leen war a jàppale ndax ñooñu dañuy defar làmb sérieusement parler ndax Gaston nekk na nit koo xamante ne buñ ko xoolee ci kàddoom dañuy yaakaar ni dafa soxor fekk dafa direct maa ngi moom a yem Sénégal nag boo ñemee wax dëgg comme ay maître El Hadj yooyu dañ lay contre dëgg moo njëkk te mooy mujj man tant maa ngi gis lu baax dama koy dénoncer tant que maa ngi gis lu bon dama koy dénoncer pour ñooñu def lu bon géem a xool ci ñuy baax ñu ñu def lu baax. lan nga gis moo sooxeel làmb gi gannaaw promoteur yi nga xam ne dañu far du ñàkk itam kon ne nga gëj nga bëre euh, wala ñenn ñaa ngi ñu ngi bëgg a décrocher sa combat lan nga gis ni moo sooxeel làmb bi moment bi. waaw <laughs> bëri na nag. bëri na. mais ubbil nañ leen arène nationale. waaw arène nationale boo dee xool ay mbëri ndaw rek fay bëri loolu dañ ci sant président Macky Sall man dama koy sant man Khadim ci li man maa ngi koy ñaanal ci ci barkeb sama turandoo ci turu maître El Hadj Diouf na ko yàlla may deuxième mandat bu leer nañ ci teranga ji mu ñu defal ni mu terale mbëri yàlla na ko yàlla terale ci élection yi di ñëw mu mu gagné gars yi premier tour ndax moom moo ñu ko fi defal yàgg nañu ko dikk musu fi am xam nga ci turu Matar Ba aussi premier ministre sama xarit comme lii nag président moo ko def maa ngi wax mbëri yëpp ñu doon ay gor a doon boo nee mbër yëpp nañ doon ay gor dafa am lu ci lu ci laxas am na mbër yoo xam ay défaillant lañ ah waaw dañ lay defal teranga comme président defal nañu teranga uh-huh. nañ ko jàppale ci teranga ji mu ñu defal kan moo ñu ko mës a defal mosu fi am uh-huh. Macky Sall moo ñu ko defal uh-huh. man maa ngi koy gërëm ci turu ki ma yàlla booleel muy Maître El Hadj ah, di ko ñaanal yàlla mu am deuxième mandat bu leer nañ man Khadim Ndiaye man man Khadim Ndiaye mbër numéro un bu caaru géej maa ko wax maa ngi ko koy ñaanal ci doole Serigne Touba teral bi mu ñu teral defal ñu arène boo xamante ni mbëri ko moom yàlla na ko yàlla teral noonu ci élection yi mu jëm mu am bu leer nañ waaw lu ma ci góobe ko ata ñu ñëw ci sànq dafa dañ ko brosser mais ci euh, arène nationale bi nga dëkkoon sànq muy li nga xam ne mooy sooxeel moo sooxeel làmb ji parce que boo ne promoteurs yi dañu far d'accord yow yaa ko wax mais seulement sooxeel làmb bi exactement ba yow itam nga sañ ko wax waaw sànq bi mm. non lu ñu waxante dëgg rek mm. gis nga fii mm. làmb ji yëpp ay diil la nañ waxante dëgg rek diil yan yan xeetu diil ay diil fi ne mbër mu ci amul bopp dañuy jaar sa kaw jàll xam nga fii yiñ fi gis bëri na ay diil rek a fi ay teg xam nga ci naka comme maanaam lu xaalis di dugg rek. Mhm. am na ñoo xam duñ ci am ngor xaalis ba la ñuy xool nañ koy amee. Mhm. xam nga. Mhm. te man de bu fekkee nar na am xaalis ci loo xamante ni. dëppoowul ak loo xamante ni bu ma ko joxee samay waajur samay doom. ñu lekk ko mu rees ak jàmm. yàlla na ma yàlla faat yàlla bu ma ko am man mënu ma dóor sax comme li mbëri def ni dem fii di dóor dóor kii fen fii pour am xaalis mënu ma loolu. bu fekkee looloo may xaalis ma xam ne oto bu rafet du ma ko am kër gu rafet du ma am li ma yàlla may doyloo ma ci ca laay yem. bi may ñëw indiwuma dara bi may ñëw indiwuma dara fii foto yi ma toog samay waajur amuñu ko woon bi ñu fii ne yàlla rek moom ma tiim amuñu ko woon kon man bu ma juddoo ba am ko naa yem ci li ma yàlla jox mais nit ñi nañ delloo seen xel làmb jii day jeex maa ngi nii tey doon naa def lu ne doon naa duur nit seen i r tepp lépp maa ngi koy regretté tey di ñaan yàlla na ma ko yàlla jégal kon nañu rafetal nañu rafetal yenn yi jaru ko yenn yi garaaw yi ñuy def ci làmb xam nga def ko jarul. mais discours Khadim Ndiaye bii ak ba ñu daan gis ci làmbam am na différence. ba au début Khadim dafa metti woon. loo waxoon ci signature contrat am kenn ñemewu ko woon dóor bi teppi r ko ni ko waxee donc boo indee discours bi ñu bëri sax dañ naan Khadim dafa mel dañ ko jàpp mystiquement. nga du question jàpp nañ ma mosoon nañ ma jàpp moom. mosoon nañ la ma jàpp. moo la mos a jàpp xam nga wax naa ko waxati ko dañ ciy ko muy yëkkini sama doom yeeg yëpp xam nañ ni seen papa benn mbër la doon bëre bu ñuy wax Yékini moom rek ko mos a jàpp jàpp boo xamante yàqal na ko lu bëri ci addunaam yàqal na ko lu bëri ci carrière am retard bi maam lépp. donc mën kon da bëgg a wax sa carrière fi mu toll nii Yékini am na ci part de responsabilité. waaw mais nag dama koy sante yàlla. xam nga tax ma di ko sante yàlla. mooy ma opté woon pour bëre. mais man musuma jël lu ñaaw wala ma jël lu bon. di ko teg sama moroomu jullit. mais nag euh, am na ñoo xamante ni xamawuñ ko noonu. li ma la man su ma neexoon tey tey tey ma am xaalis yàlla may na ma kattan may na ma fit may ragalu ma xam naa ni ñuy def ba di ko di ko di ko di ko am mënoon naa ko def mais sama ngor ak sama juddu ak tur yu ma tudde mayu ma loolu xaadim Ndiaye ngay def lii xaadim Ndiaye lañ bett ci nangam man jomm naa loolu wax dëgg yàlla nit ku ne da ngay am looy jommale sa bopp mais li ma lay wax mooy làmb ji mbër mu fi ku fi bare guddi yi ñu toll. te amoo encadrement bu doon bu bu bu bu serein bu nandite mhm. sa carrière du yàgg wala boo bëree ba pare lépp di ko fajoo. mais mais mais euh, ki doon da ñëw doon dox sa combat yaa ngi ko sànq ci yan mbër la bëggoon proposer VIP yi wala boy yi fi nekk. non waxoon na sama combat ak Elton la ma njëkkoon wax ñu dem ba ci biir waxaatu ko mu demaat ba ci biir mu wax sama combat ak gi. Mhm. mu dem ba ci biir mu bàyyi ko. ndax lan nga yaakaar. waaw xam nga bàyyiwuma sama bopp. Mhm. man ba léegi maa ngi liggéey. maa ngi nekk aéroport di liggéey ak ku ñuy wax Mbaye Sarr di ko nuyu en passage di ko ñaanal yàlla. Mm. mais lamb ji daal man li ma ci gis. mais Khadim ce que amati doole boobu. xam nga naa la leen nag. Mm. tey ma wax la leen ci àdduna. Mm. gis nga ay doole yooyu yëpp yàllaa ko yor. xam nga lan moo am ci àdduna. àdduna fas kursu la. tànk yaa ngi dund. ñàkkoo dara. tànk yaa ngi dund teg ko ci yoon ànd ak sa ngor. ñàkkoo dara nit nag. yaay defar sa bopp. Mhm. tey mi ngi mel ni yow rek. Mhm. nga ni man journaliste laa demee liggéey. Mhm. mais bëgg naa mois bii di ñëw ak mois bi ci topp bëgg naa sama salaire moo ko jotee. am lu ma ci épargner pour mën a régler problème mu nangam. boo jël édition boobu. te nga koy jot normal. te mu doon ci ngor te mu doon ci lu lew. mën nga koo réaliser. loolu mooy loolu mooy àdduna. man nag yàlla may na ma expérience ci làmb ba nga xamante ni ñaari mbër bu ñu taxawee rek. dinaa xam mbër mi moome ak mbër mi ñu war a daan. loolu yàlla moom ma koy may yàlla loolu dama koy sant yàlla pouvoir la bu la yàlla may xam nga mbër bu touché dinaa xam ndax kii jekku nañ ko wala jekkuwuñ ko. kon Balla Gaye Modou bu mujj bi dal na la ci. dal na ma ci quoi. nan la la ci dal waaw da Balla Balla Balla Gaye dama solu bay dem làmb ji. non dama dama préparé woon. ut sama yërewu bees ne de làmb ji damay seetaani làmb ji. dem ba ci sama patron Mbaye Sarr. bureau ne ko dama bëgg a seetaani làmb ji dimanche. waaw mu ne ma bu fekkee am na ku la fa nekkal kay y' problème mais ma ñëw ba fii jouru combat bi am ma solo ay vers euh, midi jàpp une heure mel ni dafa am lu ma dikkal quoi ñu mel ni dañ na ma toogal quoi laa toog taal télé di tuus laajal yi ma dendal ma leen tey Modou Lo bu amul chance dëgg dëgg sax amul waajur dañ koy dóor mu daanu. te tey pourtant nag yàlla xam na ni. barki seexul xadim mi ma yaakaar faralatuma kenn amul kenn ku may faral léegi ci làmb dafa am koo faraloon. non faral maanaam maanaam comme li ñuy wax rek ñu bëri dañ ne xadim Balla Gaye lay faral ak yooyu dépp dama loolu musta am non sama gaañ la sama xarit la woon sama xarit la woon mais yàlla xam ne gën ñu déggante quoi mais boo ne sama xarit la woon day mel ni léegi doonatu ko non maanaam dama am rakk yu bëri d'accord te man sama ngor mayuma mhm. ma am rakk yu bëre. ma di leen fi bàyyi dem di topp di di dem di topp couleur u géejawaay. wala te bàyyi sama couleur man loolu du ma ko defal kenn. sama couleur kay damay ñaan yàlla fexe am ku mel ni Balla Gaye mais sama couleur waaye dem ci ginnaaw mbër topp ko ñëpp di ma gis may sotti galaaj yi sotti. mais gis nañ say ko def. non man déggal ma la. Mhm. loolu tamit xëy na koo koy def ñoom la engagé mais man Xaadim mhm. sama ngor ak sama dignité mhm. mayuma tey su ma su ma même Balla gi fekkoon ni wala Modou Lo yëpp su ma fekkoon dama leen di jàppale. Mm-hmm. du xaalis moo tax ma leen di jàppale damay am yéene bi. Mm-hmm. ñëw conseil leen ne leen defal nii bu doon man nii laay bëree ak nii ak nii. Mm-hmm. mais est-ce que ci mbër yooyu am na kenn ku la ciy woo ne la xaadim ka damaa soxla sa conseil nii. non euh, amul. Mm. wax dëgg yàlla amul. amul quoi. Mm. amul amul benn mbër bu ma ci woo mais kenn laa xam ni moom defal na ma benn action action boo xamante ni. te muy muy muy le grand champion. muy muy muy roi des arènes. ñu koy wax euh, Eumeu Sène. booy bu booy bu am personnalité. ko ñaanal ndam lii mu am roi bi yàlla na ko jig. ban ban lan la defal na ma loo xam ne jóge naa liggéey di wàcc jóge aéroport wàcc ci auto personnel bi jox dem. mu collectionné ma man xaw ma ne moom la ma ànd ak sama gars mu daw ba sori taxaw. wàcc oto bi daw ay xel ñëw ba ci man nuyu ma yëkkati nga defal ma ñëpp postu caaro yi gépp di ko gis. loolu nag ku la ko defal nag man góor laa. ku ma dompat ma kaata la. man jikko boobu laa yor franchement maa ngi koy ñaanal ci sama xol laa ko tibbee. yàlla na ndam li jig la mhm. te yàlla na nga yàgg ak roi bi. Mhm. ba koro ngay tekki. ñi nga xam ne yéen a tolloo woon euh, moment boobu noonu nekk di bërindoo bëri na yi ci mel ni ñoom Baboy yi ci mel ni ñoom Tyson yi ci mel ni ñoom nii yi ci mel ni ñi nga xam ne moo di euh, Gris Bordeaux ba léegi sax mi ngi ci ñooñu yaa ngi leen di bi. waaw Tyson moom sama mbokk la. ball bi ñoo bokk sëriñ daanaka. Mm. ndax sëñ Cheikh magu sëñ Moura bi mm. sëñ Moura bi mooy sëriñam man sëñ Cheikh mooy sama sëriñ mm. maanaam sama sëriñ mooy magu sëriñam kon ñun ñëpp benn la moom kooku suma xarit la mais Yékini moom lamb jee ñu boole woon lamb ji jeexee pare nañ pare naa amu numéro amu sama numéro waaw. mosoo leen dajee fenn. waaw ah, dañuy daje buñ daje ay kàllañ dañuy daje tooñante Diop Ndiaye affaire yooyu loolu. dox na suñuy diggante ndax man awma rànkiñe bi quoi làmb sport dafa war a boole mais warul tàggale xam nga mais nag am na ci ñoo xamante ni xëy na yu bon yiñ lay def dina tax ba boo leen bëggee jublu sax ñoom duñ la bëgg a jublu xam nga dem ba bàyyi bëre war a jaamu yàlla julli ba pare war a ñaan say soxla téye sa kurus naan astafurla astafurla mu ngir yu bon ya nga defoon yàlla jéggal la ko yàlla nañu ci yàlla musal man je suis fier fu ma toog mën naa ko wax mën na maa jël kaamil waat musuma dugg ci armeer musuma sëf mbër musuma yóbbu turu yaayu mbër mbër yëpp ñu ci bëri xaw ma seen i tur ma amee combat dinaa dem ci ñi may ñaanal ne am naa combat ak diw turu muy wuyoo fexe ba bu ma kenn takk rek man loolu laa doon wax bu ma kenn takk kon xam nga wóolu woon naa sama bopp wóolu sama fit wóoru sama entraînement mais lamb ji nag léegi loolu amu fi léegi dañuy dem di sax ba fekk sa jabar sax wala ko bokkal ndey baay sax ñu géem ko jënd wala ku nekk ca koñ ba ñu géem ko jënd xam nga pour géem da lay jural ay conséquences yàlla nañu ci euh, la gaa mi ngi koy am mais seen daan na am mais léegi koo gis ni naan du ma bëri kii naan du ma bëri loolu la ci xaadim jox ah, en tant que sensibilité. xam nga bu njëkk ba. lamb dina am ba pare doo dégg sax ko gaañu. mais léegi néew na looy am lu lamb di am grand combat. pare ba jeex te déggoo ko gaañu. yàlla yàlla yàlla na ko yàlla fanq nag ñuy gaañu tamit yàlla na leen yàlla yóbbu àjjana. mais loolu rek mooy euh, dañuy wax ni mbër. ak commerçant ñoo yem. commerçant bu bu nga xamante ni doo gàntu. ak mbëtt moo xam du teggiw yoon. pour nga jëm fa nga egg day yomb lool xaw ma ndax dégg nga li ma wax wala déet. commerçant boo xamante da ngay gàntu doo gàntu. ak mbër moo mbëtt boo xamante du tegg yoon mu war di jaar. pour nga gudd fan day jafe loolu làmb ji nag foofu la tollu léegi. d'accord rànkiñe yi bëri na. sot sot sotaate bi bëri na. def yu bon yi na. Mm. xërëm yi bëri na. léegi daal Sénégal valeur yi amoon daal mm. léegi dafa yàqu. damay jeex ak ci combat Modou Lo Balla Gaye bi laaloon nañ ci sànq waaye faaw ñu ñëwaat ci bi ñu paree ay rumeur bëri na trop ki ñi naan mbër mi euh, promoteur bi dafa ay appelé kii euh, ñii di tudd ñenn ñi ñii dafa dem fii jaay yaramam bien vrai que ñenn ña am na ñenn ña amul yow bi ngay xool làmb ji wala li rumeur yi nga ci dégg ban xalaat nga ci am ak ban njàngat nga ci am. waaw dégg na ay rumeur rek laa ci dégg comme ci dégg nii mais xam nga tamit aussi wax lu la wóorul fen la te bàkkaar mm-hmm. naa ni bàkkaar tamit tamit bàkkaar la te tooñ amul payoor lu dul ki nga tooñ rek moo la mën a jéggal te man bëgguma di tooñ wax dëgg yàlla gis naa rek nit ñi di wax naan def benn statut yi wane ginnaaw bala Gaye ñu ne dafa def sacrifice mais wax dëgg yàlla man gis bi sax leeru ma xam nga naan promoteur bi moo tëgg combat bi moo def nangam xam nga mais man ni ma xamee Gaston laa ni ma ko xamee man ndax sama combat yu bëri fii bëri na bëri fii bëri yu bëri yuy taxaw tey yor seen i kër xaalis yu nga ci mais tey Aziz Ndiaye géejawaay la dëkk am na rakkam am na droit gis rakkam di bëri ah mais tey li ma li ma wul ba wul rek mooy li Aziz taxaw ne moom moo tëgg làmb ji maanaam li tax rafetlu ma ko mooy maanaam waroo jiital nit ba pare di ko fa xasal mm-hmm. ndax Gaston dafa yor njaboot yor kilifa nañ leen bàyyi ñu liggéey seen teeyu bakken ñoom liggéey bi ñuy def nii liggéeyuñ ko pour yóbbu ko Guinée liggéeyuñ ko pour yóbbu ko fenn ci réew mi lay yem nañ leen encadré xale yi te bàyyi waxante yu ñaaw yi xam nga yi dafa ñaaw sax ay diw moo def lii ay diw moo def lii ay ranki ñi rek lay indi ranki ñi boo xamante ni doo xam après lu muy jur am na ñoo xamante fi mu ne nii lii denc nañ ko seen xol duñ ko bàyyi ndax am na ñoo xam dañu bëgg Modou ba gëmewuñ ko am ñoo xam dañu bëgg Balla Gaye ba gëmewuñ ko te ñaar ay xale lañ liggéey ci nekk sa jom ak sa fulaak sa fayda moo la egg fi nga egg si kon nañ bàyyi xale yi ñu liggéey te bàyyi xale yi ñuy teg ay diil ay dugg na nii génn nii yooyu nañ ko bàyyi. teg dil dafa mel ni am na kenn koo xam ne da koy gis muy teg dil ba mu jaral la wax ji yëpp. non maanaam. foofu gis nga li ma xam ci làmb lépp. Mhm. billahi laa lazim mhm. xam nga ay temps déggoon nga bi sax ay gars yu doon ay boy kayre ay ladde guerre mhm. génnoon di def ay ay ay classe ci man. ñooñu duma leen tontu. ñooñu man su tontu damay tontu nit ko am valeur. Mm-hmm. nit ko am valeur numéro mm-hmm. nit ku am valeur mooy. Mm-hmm. yow loo génne sa gémmiñ ci rek na doon dëgg. xam nga caaru géej laa ne te lii ñëpp dañ koy teg. booy kay rek ku ko fekk mu naan daan daf ma daan jox xaalis. daf ma daan oo oh, di ma may xaalis waa caaru géej ngi samay jabar a ngi nii. man ay monsieur le rek yëpp ngi nii ay ay rek a ma wër mais kenn musul dégg ne Khadim dem na këram di tallal à main jamais. moom. xam nga. Lac de moom. man awma lu may wax ak moom. moom heure bu ñuy bëri day tuxa tuxa tux yamba ba réer. ba day joxaat sama kanam. ak ak ak barrière yi moo tax heure bu ñu dajee ku laa koy def tëf faqat ko deux fois laa ko daan aller ak retour. kon kooku du ma moromu. booy kayre mi wax. arrêté laa ko dóor jël tànk gis nga nag naa la seen coow li ci débat bi la yam de mais ku ma ci dajaloon barki salaatul fati ne la yee eh, teggil barki Serigne Fallou Mbacké da ngay ni fasu kur ñoom ti ma connais très bien nañu bàyyi Alioune Sarr mi doon yàq deram Alioune du seen morom du seen màppandoo euh, maa ngi dégg sax ñu boole ci Eumeu Sène naan Eumeu Sène xaritu ministre bi la ministre bi ñëpp bëgg a xaritoog moom Matar Ba man su ma sañoon sax Matar Ba caare géej la yeewoo kooku dafa am valeur ba nga xamante ni am personnalité man su ma sañoon Matar Ba ku am ku mel ni ministre bu am Matar Ba fonk sport bi yëpp kenn musul dégg corruption wala dara ci moom ñëpp la yamale mais Eumeu Sène Matar Ba grand frère am la kon Matar Ba c'est un grand monsieur gis nga li ma bëgg mooy làmb ji seede yàlla ñu jox ko CNG te bañ koo bañ koo sàllarlu buñ ko defee rek làmb ji am xam nga association des anciens ah, bi nga xam ne ñoom ña nga lim ñi ña nga ca yow ne ñoom xam nga ñoom. maa ngi a yem ku ci bàyyi da war a dem ci màng de nga wut carte membre ancien leader. ay Moustapha Guèye xam nga ay Moustapha Guèye. kooku ñaar ñaari Moustapha Guèye yooyu. ñooy jaxase booy yi ñooy jaxase àdduna. Moustapha Guèye man du Tigre. Tigre ko waxee Tigre de Fass ndax xamul tax yow boo yoree ikiri am na loo xam gis nga Balla Gaye lii mu am moo ko may boppam ah, du Moustapha Guèye de daan bii mu daan moo ko reyante ba am ko Modou Lo yàllaa dogal mu daanu na dem pare jiwaat xale la am na avenir yaa ngi dégg ku ci nekk fii nga egsi sa jom ak sa fulla ak sa ñaanu waajur ñoo la fa si ay Moustapha Gueye jóge fële ah bàyyi si écurie yow si écurie yaa ngi ut roi de arènes mënoo fexe am ko yow heure bu say mbër bëree ba sax tas na kenn xamatul lan la yow nga war a ñëw soqaliwaat si écurie naan da ngay nekk fii di def ay yaataa yu ma ñaan jox nañ la xaalis ak jox nañ la langam loolu Moustapha Gueye loolu ger la sax ger xam nga loolu nit ku ne war nga koo jommal sa bopp gis nga man boo ma fekkoon fii di ma jox un milliard ne ma jàppaleel Modou dama naan la teel sa un milliard su ma lay jàppale dama lay jàppale te yàlla tax loo may yëkkati nag nga may ma ko maag yow ak yàlla mu wóor ma ne lii sa xol sedd nga may ma ko dinaa ko jël mais kaay ma defal kaay ma jox la nangam nga defal ma nangam man kenn du ma ger musuma combine ci làmb combine musuma koo def ci làmb Moustapha Gueye bu xamoon bu fekkoon ne am na technique yu muy joxe ba muy bëreeg Balla Gaye Balla Gaye du ko daan ba muy bëreeg Lac de Guiers Lac de Guiers du ko daan nañu waxante dëgg kon am na yoo xamante nit ki du la daan ba pare nga bañee ku bàyyi si écurie lañ mm. man booy yëpp laa nawloo mm. Lac de booy ñaa mm. ñoom ñëpp ku ci nekk père nga may wax dañ ma jox cër moo tax du ma ñaaw di ko teg seen der amul kenn nag ciy faral nag mais képp koo xamante ne nag contacté nga ma ñëw ma seet si ma ni ma bàyyee bëre ni ma grand nangam ak nangam dinaa la wax ni la man combat bi bi nga ko amee booy bëre nangam ak nangam mais Modou Lo il faut que mu defaraat estafam doo bëree combat bu mel ni combat Balla Gaye Balla Gaye bañ ko fi dem Paris def fa 3 mois 4 mois kooku xam nga am na sa combat ak moom lu mu ko jaral mais nga ñëw ñi lay jox gàllaaj Modou moom dem na Espagne. waa déglu ma rek mhm. Espagne bi bu doon maay moom état bi mu fa jëlee bu doon maay moom bu may demati dootuma demati Espagne nit ku ne da ngay natt sa bopp rek booy dem fenn la nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi te jigle la man dama koy conseiller dem na Espagne gis na forme bi mu indi kenn kontaanu ci na dem fam daan dem ba am lim daan ba ba mu exil ko fii bu mu ko bàyyi sama rakk la suma xarit la jox na ma cër fu ma bu père la may wax te fu ma moom daf may teral Lac de Guiers daf may teral Balla Gaye daf ak Eumeu Sène dañ may teral fu ñu ma dajeeg man mm. kon billahi wallahi barki laa ilaaha illallaah mm. ñoom ñëpp aw ma kenn ku ma ciy faral mais ku ciy bëre nag mm. am naa droit nag ñaari xaj sax bu ñu doon bëre di nga am koy faral am naa droit kama faral ma ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam mais sama biir xol mais dootuma fësalati di dem musuma ko def sax dem ci ay kër diw ay kër nangam ndax kañ la jubilé bi waaw bi ñu ngi ko euh, dimanche bi lañu ñu war a réunion pour jàpp date bi. Mm-hmm. def dañu bëgg a def jibile boo xamante ni musta am ci àdduna. Mm-hmm. dañuy am ndaw rabbin. Mm-hmm. Eh, caaru géej fii dañ fi maye tànn biir. def fi gumbe def fi ndaw rabbin. lépp lañ ko fi bëgg a def au suma mbokki lébu yi. moo booy sol ay siire. xam nga ñu ilifa invité ay kilifa yu mag yéen boobaa sax damay bëgg ñëw ngeen ñëw ndax di ngeen gis lu mucc ayib te jibile bi dama ci bëgg jël mbër mu mag mhm. boo xamante ni am na fuñ jaar maak moom ci làmb muy kan euh, loolu mënaguñ ko wax léegi buñ ci eggee mhm. di ngeen ko yëg maak kooku ñëw ciy bëre mhm. pare nañ daal yu bëri yoo xamante ni pour sama jibile la ndax ku ne xam na ne Xaadim Njaay am na lu mu def ci làmb aussi nag di leen ñaanal yéen aussi seen site bi yàlla na ko yàlla gën a ful xam nga ubbil naa leen samay porte heure bu ngeen bëggee ñu waxtaan ak lu mënti doon wala question bu ngeen mën a kii rek mhm. ndax fii dëgg rek a fi jib man dëgg rek bëgguma wax loo xamante ni mhm. ëllëg mhm. dañ ciy xeeb sama doom wala ñu di ma ci xeeb donte dañ may rey bu ma gisoon lu bon ci làmb billaahi wala dama koy wax te làmb ji nag nii mu jógee baaxul maa ngi alerte nag nii mu jógee baaxul farfarloo bi bëri na trop ci làmb ji danañ bàyyi xale yi ñu bëre ku mën sa morom duma mais ñu commencé par parloo rek dina am camp bu mu neex ak bu mu neexul te booy ku ci egsi fii muy Balla Gaye Modou Lo ñoom ñëpp ku ci egsi fii sa fulaak sa fay daal la fi si ak seen liggéeyu ndey maa ngi leen di ñaanal merci moom la ñu def tey Khadim Ndiaye muy le grand lutteur Khadim Ndiaye boucher bi nga xam ni itam def na ci làmb lu ne muy waajal jubileem donc mu ngi ci invité ñëpp tey nag sans limite lii la leen indiloon waxtaan ak moom ci lu bëree bëri gëm naa ne waxtaan bi am na solo trop ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous prochainement ak keneen lay doon jaajëf merci